yàlla na continuer yàlla na sax euh, euh, bu dee sa jëm euh, sunu borom am na tuuti lu ma dénk ci psychologie suma dégloo doomu aadama bu mu wax la may juum ca moom lu nuw lay doon te bi ñu talee waxuma li ma ñu wax ci yow déedéet mais bi nga dalee wax xise yi yaatu gi laa biir gi <laughs> li ma jàngat mooy nitu nitu yàlla nga ndax euh, nitu yàlla mooy fu mu ne ñëpp day bëgg ñu bëgg euh, yàlla na sunu borom gën a dëgëral taxawaay bi yokk fan wi yokk wér gi euh, ñu ngi lay sant bu baax daal te fasanteeg yow kóllëre jërëjëf ay dara jërëjëf ay dara li ma la njëkkee xool rek yàlla dafa def sama xel dem ci Cheikh sëñ Mbàkke sëñ Cheikh Mbàkke Gaynde ma yàlla xam na ko waaye Serigne Cheikh Ahmadu Tidiane ak yow mii yéen ñaar seen ñaari xol wóor na mun a ñëw wokk fu leen yàlla bidde loolu moom leer na ma naññ tey waaw lii kay man maa la ko wax loolu leer na ma nañ bari na koo xam ni di ko jige jigéen da di kiiraay ci yow soo amul sens doo ko jariñoo ñi la yàlla booleel yàlla nañ la jariñoo jëriñu ñu la dara mënuñu ko waaye sa jàkkaarloog ñoom képp soo waxul sax njëriñ la ci ñoom billaahi lasi si ilaha illa huwa gin naa ko ci Cheikhuna Tijaani yi mi nga xam ni alxaaji Abdul Aziz Si moo waaye sëriñ ku la neex ngay ci allahu akbar fukki junni na ci li nga wax ci Serigne Cheikh mayaat naa fasante na maag yow kóllëre te duma ko fecc fenn muy dugg ci biir suuf su ma duggee ci biir suuf it duma ko fecc fexeel ba teg ma ci sa loxol maam sa say Seydina Muhammad man wóor na ma ni jëfuma lu wóor bu aljanna leer na ma nañ waaye wóor na ma ni bëgg naa nit yàlla yi toog naa ci pom bi fii ci alxaaji Abdoul Aziz ma ne ko ba ma juddoo ba léegi mosuma jox loxo sama sama loxo nit rocc sama loxo rocc sama loxo am lu ma ko jàppal ci sama xol mosula am kon sëriif yal na yàlla sàmm la li ngay liggéey ci tariixa bi di ko liggéey ci diine ji di ko liggéey ci nit ñi xam nga nit ñi dañoo gàtt xel ndax dañoo yaakaar ni nit ki tariixa mooy ëmb nit mais tariixa bi nga bi nga bi la yàlla lay jox lim lay jox booba tariixa bi juum booba tariixa bi juum de bala yàlla boole rasulullahi boole nag Seexuna Tijaani nga war a jaari fi ñoom ñëw ci jamono liggéeyal yàlla ci biir jaamam yi booba tariixa bi ñëwul ay dara yàlla na nga gudd fan ndax xaar yàlla na xaddi te kat dama lay waxal leen gis nga réseaux sociaux yii nit ñi di wax di lu nekk ñu di ko ci jëf ak di ko wax nit yàlla yi seen bopp seen bopp lañ koy def Seydi Hadji Malick nee na deru nit yàlla tooke la ku ca matt di nga dee dañoo toog ci benn kër am ko am benn kàddu bu mu wax Alaaji Abdu Asiis ni bërit jóg benn booy boo xam ne moo gën a nekk xale ci noonu ni waa ji di nga dee ren sa kër tas te di nga dem sa war billahi lasi laa ilaha illa huwa waa jooju boobu avant muy dee làmmiñam daa mel ni këriñ di dagg di rot ba jeex takk mu door a faat moo tax ñu mel ni yéen yàllaa leen wax loo dee leen wax jaami leen di déglu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Serif Serif denk naa la sama bopp Serif denk naa la sama bopp man Maodo si moom a may salaatul faatih moo ma ko may ca pomba dama daa wax gars yi ni leen ñaar damay defee ni nit du ko def ñu ne amal leen sol lu tilim ak sol dàll wu tilim ak ñàkk yor xaalis waaye mag ñi nag léeg-léeg ñu yar nit léeg-léeg nga bëgg a ku ñu yar la man nii ci ñu yaakaar ko gis. wax nii xaaj Mansour doy na ci seede Chérif waxuma taraanga ji muy def jëme ci yow waaye yëg gi lay jox rek yëg rek day yëre gor yow réew mi danoo desee xam lu baax te desee bëgg lu baax waaye foo wàcc fu mu doon mbaa fooy toog fu mu doon tabaarakallaahu dóorante mbagg yi war na faa bari ndax bëgg a jariñu olof nag danaan boo àndeek àndee muuma mu jékki-jékki daw dawal topp ci xam ne kenn woowu ko téléphone ne ko danger sa kanam bëtuma ci tege mu jóg kilifa yi ci réew mi ñëpp kilifa yi ne ci réew mi yëpp tabaarakallahu xam nañ li sunu borom def ci yow ma ne ñi ni fiy joxoñ laa wax démb ak tey ñëpp xam nañ li sunu borom def ci yow nangu ko téye la ko joxoñ la. doon ko xelu tabaarakallaahu te bëgg a jariñu li ko war mooy wàcc si suuf ak jox na cër bi mu la war a jox ak jox na sa waay kon nag Chérif ñu ngi lay ñaanal yàlla suñu borom doon naa dëgëral ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu noon xam sa yoon tabaarakallaahu yàlla na la làmmiñ seexlu te xam na ni gémmiñ du mën ci yow dara ndax koo xam ne loo def ko ci gémmiñ ñi gémmiñ du mën ci yow dara te yow Chérif tabaarakallaahu yow ameloo kenn bor wa rabbul kaabati waxuma dara waaye moom dalay day fexe ba ngay mos xam nga di la xaar bis bu jot boo ñëwee mu mosal la yooyu ay la mais danaan yóot daal di lay masal daal di la yoof ne la baax na nga dem di mos di mos di mos léeg-léeg sax nag nga farfiraar ndax mos yóob tabaarakallaahu sërif ñu ngi ñaan yàlla na yàlla dolli sa sutura ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow joxoñu si alxaaji abdul aziz si da baax nga moo tax réew ñëpp la xool réew mi nag nopp yi daa tàmmi fen ba wax dëgg doo neex kenn noppi sénégalais yi moo tàmm ay kàcc ba booy wax dëgg doo neex kenn waaye koo neexul ak koo neex yow ñi la neex sax ñoom ñooy gën a neex nit ñi ñi nga xam ne neexoo leen barki yonent bi Chérif boo fexee ba neexu nii da mujju neex ñëpp foo dugg sama waaji rek ngay dégg sama waaji sama waaji kon nag ñu ngi ñaan yàlla la yàlla dolli sutura yàlla yàggal téer bi ci darajey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam réew mii daal tabaarakallaahu lu fi waay bëgg lu mu doon ak lu mu doon ak fu mu ko bëggee ak nu ko bëggee bu ñëwul bëccëg it dana ñëw guddi ndax ñun fii li fi dox xam nat ko bu ñëwul bëccëg dana ñëw guddi tabaarakallaahu mbaa mu xool fu mu lay jotee léeg-léeg ñun ne ma sérif nu may def ba jot ko ma ne ko ma jox la code bi nga ne waaw ma ne ko xanaa koj fexe ba xam fu muy jëm nga dem fa taxaw waaye lu dul loolu boo ko dee xaar ci ligne bii bu doon moom Sonatel danañ am problème tabaarakallaahu ku ma yaakaar ne ma fa jaaree rek jot sëñ bi gën a yomb. tabaarakallaahu tabaarakallaahu tabaarakallaahu xaaj Mansour xam na lépp yal na yàlla dolli sutura mboolem ko fi teew yal na nga am jàmm ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ëtt bi ëttu jàmm la mag ñee ko sos te Serigne Cheikh Ahmed Tidiane loxoom jugul fii xam nañ ko bu wér a wér a wér a wér a xam nañ ko bu wér a a wér te lii nuy wax nag tabaarakallaahu bëgg lu neex Chérif taxul ndax nag ku ne dégg na li mag ñi wax jëme ci moom te Cheikh El Hadj Aziz Malick ku ne xam na ne du propagande ku mu joxoñ waaja nga ñun dañ lay xool ba keroog sunu kanam sunu boroom dañ lay xool duñ la du mooy mukk billahi wallahi taala ko wax lu neex wax lu rafet wax lu jàkk jëme ci yow danañ ko fonk waaye ku la du mooy war rabbul kaabati duñ ko sax mën a xool kon nag yàlla nañ fi yàgg lool te ànd ak wér ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man daaw xam naa ne boo doon siburu ci perfusé ma la ñuy dëkk niñ ma duggee sama a ko def kenn du yow ay dara yàlla fi yàgg te wér <laughs> eh, lii laa kenn mësu ko dégg.